audition démb bi bu ñu ko daal di convoqué ndax ñu bëri dañu commencé woon di bind ay arrestation mandat dépôt nangam nangam euh, jusque lañ ko convoqué rek en fait dañ euh, ko convoqué mu ñëw rek déglu après ci la ci la dem ñenn sax ñu doon xalaat ne dinañ ko fa téye ak yooyu euh, voilà moom ñëw na si mais nag pour un peu leeral parce que la Diop bu ñu déggoo ci kàddam Bilia ragg na deram bon c'est tout à fait normal et logique waaye tamit information bi pour nit ñi comprendre aussi que nit si di internet bi bind ñu ko rek ah dañ ko am fu ñu ko jëlee Ouzin euh, comme ni nga ko waxee rek dafa am fu ñu ko jëlee te ci euh, su ma ko mënee wax télévision wala rajo bu mag la fii ci Sénégal rajo bu mag la fii ci Sénégal mhm. jàpp naa ni fa lañ jëlee information boobu waaye mhm. moom ma ngay génn moom la Jóob dal di ragg deram mhm. daal di wax ni woolu nañ ko waaye ñibbisiwaat na mais Ouzin tey jii dañoo war a toll foo xamante ni ay information biy génn war nañ ko segg seggaat mhm. yenn saa yi mën ngaa joxe benn information boo xamante ni mhm. information boobu la nga wax ca nit ka bu génnaatee démentir la rek yow mën na am sa benn crédibilité day wàcc Mm-hmm. te yaakaar naa ni mu ci ñun mu ci ñeneen ñëpp euh, la yam mm-hmm. nit booy dem bay génne ay information daal na doon information boo xamante ne bu leen nañ la fan yaa ngi gis ñuy génne ay information naan diw diw diw diw ci gouvernement bi lañ nekk seen mag seen rak seen ni ay tur yoo xamante ne ñooy bokk même sant yooyu tam c'est à éviter Ousin mhm. réew yi ñu nekk war nañ ko mën a jub jubal euh, comme ni ñu koy waxee rek jubbanti ba nga xamante ni information biy génnati rek dina doon mhm. information boo xamante ni information bu dëgg dëgg la mhm. mais tey jii ni Lat job boobu ñu woolu euh, ñëpp seetaan nañ vidéo boobu ñu ko doon wax ci milliards yi nee na vidéo boobu moo tax ñu woolu ko mais comme dem na déglu nañ ko te ñibbisiwaat na mu demoon foofu te gendarmerie bu Kër Massar mais déglu nañ ko mu ñibbisiwaat ba ci këram kon nag euh, nañ xaar rek nu yoon di ñu naan olof naan lu wànnent yi mujjee ki gëtam mhm. xëy na euh, woolu nañ ko dinañ daal toppaat enquête bi mhm. ba xool ndax liñ koy wax dëgg la wala du dëgg ndax un mhm. milliard yooyu ñuy wax ni moom moom lañ ko dénk ndax dëgg la wala du dëgg ndax dëgg la wala du dëgg donc ñàkk euh, Abdou déglu nga information bi jalu ñu koy play di ko déglu déglu nga ko à peu près Makumba Bey bi ko joxee wala fa euh, RFM euh, site d'information yu bëri parce que man bi ma déggee information bi euh, parce que dafa xawoon a brusque dafa xawoon bette maa ngi woon fii bi ma toog rek gis information bi ci laa visité benn site ma gis article bi mais ci fin bi signature bi ma gis ni bind na ci RFM ma dem RFM seen page Facebook ma déglu ko pour comprendre un peu lu lu bon am nañ source bu leer en fait pour mën koo commenter ndax nga gisee déjà information bi ni ñu ko relaté balaa ñuy ñëw ci euh, réponse yu Lat Diop ak audition bi. waaw xam nga Lat Diop la. Mhm. te day déranger nag. Mhm. nguur gi fi ne. Mhm. Lat da leen di déranger. Ah ndax Ousmane Sonko neewoon na bu ñu ko joxee réew mi Lat Diop ak Alioune Sall yëpp ci kaso bi la leen di dugal. bu dee nag yoon wu ñu jaar bu dugal ko kaso lañ bëgg. ah mu ngi noonu parce que nag procureur bi auto procureur bi sant gendarme yi ñu jàpp ko. daa wax yu gën a garaaw yi bu Dieng wax wax ko gën a garaaw te waxul nañ woolu waaj mooy côté la xam naa ay gendarme yoo xam ne xam naa ñu leen faat. Ibrahima. waaw ba léegi. yow Ibou Dieng génn na diw daf maa dénkoon xaalis ci manifestation nga ne diw moom a kaay yow mi dénkaane woon mais ki xam gendarme yi ñu faat moom doo ko a woo. Mm-hmm. léegi damay laaj procureur de la république lañ am. wala procureur de la partie. Mm-hmm. wax ngi bëgg a jot nag un Ibou mm-hmm. xam man laat mosuma koo gis. mais problème woon Ibou Dieng yàlla moo ma ci yamloo tribunal Guédiawaye ma demoon di déposer plainte fekk fa audience bi. mu mm. yàllaa ma ca yamloo. ñu koy toppee problème mu transfert joueur. boo xam ne CFC euh, waaw CFC ne da cee luubal. CFC mm. porté ko plainte. Pa Lat Diop. Mm-hmm. mu ngi mel ne tey ma dem ministre des finance luubal fa. Mm. ministre bi porté ma plainte ma ne jomaay la. Mm-hmm. nii rek la demee. du du du président moo la porté plainte club bi moo porté plainte ngir alalam jum ne dañ ko luubal moom ñu daan ko mu tëdd kaso mais léegi ba muy génn amaa muy tëdd kaso. mënul woon wax laat dénkoon na ma xaalis mais yow boo demee ba génn kaso même bu la laat dénkee xaalis sax boo ko waxee dañ naan du dëgg da mer tey bërki démb nga taxaw tàgg laat jom ne sa baay la sa lépp la. Mhm. loo mën moo tax. Mhm. ne moom moom moom moo lay jàppale di la jox ay millions. Mhm. nga yaataa yimbe ak a njaaba njalle léegi yow dem nga ba seen diggante naqari nga ne xaaral ma wax même boo xoolal xam nga sénégalais yi lan la ñu war a jàng. tàqali ko ci jàmm. xam nga tàqali ko ci jàmm moom moom ci la war a jàng maanaam maag yow seq nañ kóllëre. dem nañ ba suñu diggante ñagas na. li ma la ëmbal naa ko denc dem ak moom deewaale ko li ma ëmbal nga denc ko. mais fii bala ngaa kontaan rek nga tàqali ko euh, bili ne xaaral. lan lañ xamante woon nag xaaral lañ sékkoon. Mm-hmm. naa ko wax. fekk yow sa bopp ngay weer. Mhm. loolu la ñu war a bàyyi te loolu lañ gis ci nguur gi fi ne nag. dinaa leen jox benn euh, information man nguur gi biñ ko biñ leen fale def nañ trois semaines lañ ci teg ma jot benn appelu benn kii chroniqueur mu ne ma booy sa pelante bi nga defoon Sidi Ahmed kii ko accéléré ko man wér na ma ne bu ma ko dugalaatee jàpp ma ne ko non bàyyi naa ko mu ne ma noonu lu tax affaire bi ma ne ko dama koo bàyyi. xaw ma kan ngeen di jàpp mais du samay loxo ngeen koy jàppe mu leer na am na ñeneen ak ñeneen ñu ñu koy def cest à jote nga ak Ousseynou Ndiaye yàgg na affaire yi kii ñu woo la ak la accéléré ko parce que wér na ni boo koy dugal rek ñu ne procureur jàpp ko parce que am na am na seen diggante lu ci am nguur gi fi nekk nag ñoo koy def seeni nit ñoo ko def. Mm-hmm. ki ko ki ma ko wax xam na bu ma déggee dina xam sama xarit la donte mu ngi ci nguur gi di leen jàppale mais maa ngi moom dañuy daje ci bërëb. mais ba ma ko dama ne ko banaa ko du ma ko def nit lu ñu ma lu ñu mën a séq xoolal bu ñu demee demal man nag du ma baale suñ séqee dara soo demee ba maa weer dama naan la comme dangaa ngaa mën a yebbeeku acca nañ ca ne mais tant que yaa ngi garder sa sérénité man du ma mas a génn ne diw maa moom bañ di diw nii loolu du yëfu gor Ibou Dieng lii mu def dafa ñaaw bu ko ko laaj dénkoon sax waru ko wax. mais mais mais contexte bi mu ko waxee dafa doon doon bon en fait da doon sag euh, ragg deram di wax ni moom dafa jub dafa nangam nangam maanaam question bi dafa. mais xam nga damaa jub xam nga damaa def quoi xam nga damaa jub. Hmm. jëluma alalu waa Géejawaay dong doy na ci. damaa jub soxlawul diw dénkoon na ma. Hmm. neel CFC lii ñu may tuumaal. dama hmm. war a yóbbu ma prison lii du dëgg. indi ay argument yi wane du dëgg boo démontré loolu ba ñëpp xam ne dëgg rek jub nga mais gis nga soo nee damaa jub. ndax kee dénkoon na ma. ñu dénk la nga delloo ko taxul nga jub parce que boo ko lekkee dem kaso. mais est-ce que Lat Diop toll na ci tolloon na ci toll na ci réew mi toll boo xam tolluwaay boo xamante ne war naa mën a yor un milliard yoo xamante ne da koy dénkaane. soo nee war na kaa mën a yor cest à yaa ngi dëggal na yor na ko. gëmal da ngay jàpp ne yoru ko ndax gisoo ko buñ la indi li xibaar ci ne ko alxuraan waxee. donte da da alxuraan santaane nga vérifier ko de. mais Abdou du lool de Abdou réew bi dañ fee farataal di gis yenn politiciens yoo xamante ne muy maire ba député yenn saa yi ñu gis koo xamante ne ministre la day dugg du mat sax euh, maanaam euh, mandat bi nga xamante ne sax mooy premier mandat bi bi président di toog du matagum ñu wàccee ko jël keneen sax kooku noonu dafiy nekk milliardaire. te da lay leen salaire am matewul sax matul ay millions yu bëri ba moom mu war a nekk milliardaire fi gis nañ fi politiciens yu bëri yoo xamante ne Abdou ñoo moom ci suufi ñoom moom oto yu baax yi ñoo dëkk ci kër yi baax yi. waaw man de jomaay gis naa ko ci oto yu baax yi gis ko mu yor ci kër yi yor ci terrain yi te impôt domaine dong la ne woon simple faykatu juuti la woon kon nag kon mu neex yori milliard wala kii jomaay li mu am ci suuf yëpp boo ko évaluer ak alal jeeg oto bi mu doon campagne noonu te loolu du xaalis bu ndaw nañ leen ko nangul entre ñoom la waaye dama ne mbirum CFC ji dangay jàpp ne laat yorul un milliard huit ko wax. tegul lu leer su tegul lu leer laa du ñibbi. mais moom maanaam pour pour maanaam bénéfice di dut mm-hmm. xam kan nga koy accordé ki nga xam ne dem na ñibbi waat mais ki nga xam ne dafa yóbbu wax ay waxam compté wul xam nga waxi Ibou gendarme yi ko dàq enquête foofu enquête nañ laat xam nañ ne li bu wax taxawul te yow ci xel bu sell yow war nga jàpp ni Ibou meer a ko tax li seen diggante mag laat bu doon tax est-ce que dina ko wax du ko wax léegi seen diggante bi muy ñagas ba ma ñagasee nga koy doo ko wax sénégalais dañu posé question waa yow bi muy bi mu la ko dénkee demoo dénoncé ko comme réew mee la ñor mais da nga ne ko xaaral mu wutal la ay wuyu yu la garde ba nga xam ne kenn du fi mën a dugg garde kër gi kon moom même bu doon laa da ko jubal luubal ñoom ñoo ko ànd complice la ndax wutal na ko wuyu yu ko garde mais gis nga faaw ñuy utiliser suñu xel bañ a jël ci noonu. man et puis tamit. pour ñuy seetaan xoolal ah. pour ñuy seetaan. Mhm. man laat musuma ko gis. musuma ko gis musuñoo daje musuma xaw ma sax laat këram nu mu laat mooy kan. mais ba bi ma déggee information bi xam naa ne transfert jour bi moom yëg naa ko problème bi ci Ibou jee am yëg naa ko parce que Ibou Dieng man Malick bi may fréquenté du sama garaa xarit Ibou Dieng la problème te Malick ci affaire sport la yëngu te ñun dañu ñun dañoo nekk ñoo xam dañuy seetaan Ligue mm-hmm. di ko seetaan di xam yi xew problème yi xew ci club yi bari dañ koy xam man supporter jaraaf la problème bi bi mu amee ñi monde ñi ni football football yëpp xam nañ ne Ibou Dieng am na problème ak CFC. mais bu bëggee jël problème bi wuy de ko ci te dégg naa xaw ma tuddante nañ ay doom xaw ma nu mu demee noonu mais affaire bi dafa ñaaw. léegi mais mais mais xaalis bi. Euh, waxawul waxawul woon ci contexte football ma ne xaalis bi dañuy dafa ma dénk xaalis vers deux heures du matin seetaan nga mais moment wu émédi. c' contexte bi bi mu ko joxee xaalis bi bi mu wax ni da ko jox xaalis bi. c' est que problème bi Sénégal c' pas entre ñoom ñaar seen problème de mais xaalis bi mu ci tudd. Hmm. diw moom ma ko jox. moo tax procureur légalement yoon may na ko mu nii dem leen déglu la job benn ñaareel bi aussi est-ce que Lat Diop ñibbi ñibbi këram ça signifie que ne Lat Diop deful dara parce que à tout moment yoon mën na ko soxla woowaat la ndax pour les besoins de l'enquête mën nañ la déglu ba pare ne la waa d'accord demal euh, nga nekk suñu disposition heure bu ñu la soxla woowaat la nga ni d'accord xam nga loolu dafay am. est-ce que tamit mënuñu xalaat loolu aussi. xam nga Ousmane Sonko Matar Diop daa mas a génn ne daa jël vingt millions de dollars yi jàmbur. ci mbirum pétrole. procureur woowutoon kii de Ousmane Sonko. déglu ko. woowu ko woon. mais Ousmane Sonko waxul loolu a garaaw bu ma wooyee déedéet noonu la loolu gënoon a garaaw. Mhm. ne laat la moo tax bañ déggee milliards yi ñu tiit parce que ñu ngi rëbb laat fii moom xoolal nañ wax dëgg digg jàpp laat Diop jàpp Alioune Sall jàpp Mansour Faye yaakaar naa waa Pastef loolu bu ñu ko defoon sax mën nañoo démissionné ci nguur gi ne suñ mission mat na parce que dañ leen a een xam nga nga een nit ki day waral nga yàkkamti ko ba def erreur maanaam yàkkamtee jàpp nit dina tax nga jàpp nit ki ci loo xam ne jàpp nga ne yoon na ko ci daan nga yóbbu ko ba yegg juge bi ne ko defoo dara nga jàpp ne yow juge bi ni mu àttee du noonu fekk yow yaa yàkkamti. comme nii nit ñi rëbbee Abdou Nguer nii. suñu deful ndànk danañ yàkkamti dañ lay rëbb nii non si loolu moom leer na comme ni. nan lañ lay rëbbee yow. rëbb la xam naa damay déranger. léegi nag boo yàkkamtee. non la nga juum wala nga tooñ wala. bu ah, fekkee woon dafa dara dara ñu lay rëbb man fi mu ne bu may wax ci nit sax dañuy xaar ma ne ah, nguur gi mënumaa jàpp léegi dañuy fexe jaar ci ay gaay pour ne waaw porté leen ko pelle te man lu ma waxal nit maa ngi preuve yi man du ma Ousmane Sonko léegi nag fi mu ne nii boo yàkkamtee Abdou Nguer man nga jékki-jékki ne ko kirtim dem ba yegg tribunal nga ne waaw lii la wax indi fekk dañ laa daggal benn séquence. léegi nga daal di wayee di nag. léegi ñoom yàkkamti googu lañ war a baax lii jërutoon woo laat jóg Ibou Dieng mu génn prison mer ci bon sens procureur sax bu bu bu xamee histoire procureur parce que procureur Guédiawaye Pikine Guédiawaye moom moo moo dossier boobu mu ngi ci taabalam dossier CFC tribunal Guédiawaye lañ ko doon àtte mais moom bu déggee loolu rek automatiquement war na xam ne kii ñu doon àtte fii jàpp na ne kii moo ko indil problème. waaw mais mais c' est justement loolu moo si problème bi c' est pas que problème mooy bi intéressé ba ba xaw a jaaxal sénégalais yi ñun ñëpp d' nit ko tudd un milliard dama jox un milliard liquide. et poussière un milliard huit mooy un milliard euh, et poussière par mm. jox la ko. 2 heures du matin jamono yi attends jamono yi ëmmati maanaam jamono bi nga xamante manifestation yi dafa am. deux heures du matin mooy naan wërale kër yi. waaw léegi yow justement rek mais loolu loolu. yow tey en tant que sénégalais mais yow loolu en tant que sénégalais boo gisee nit ñi benn nit. Ah. nee na téye na un milliard et quelque jox nañ ko téye un milliard et quelque ci réew mu pauvre comme Sénégal. Ah. mais yow en tant que sénégalais pour bëgg lu leer te nga ne waa mais. mais lii dañ ko war a vérifier est-ce que dëgg la du. du waaw mooy li ma wax Ibrahima Sall rek lu baax la. bu Ibrahima Sall bee gënoon a neex a vérifier mooy euh, mooy yooyu mu ñaan dañ leen a saaf ak dañ leen a baaje kii booba gën a neex booba gën a gaa Sénégal yi sax loolu lañ soxla ah mais moom nee na bu ñu ko wooyee mu indi ay preuve loolu la wax léegi nag procureur bi war a woote du woolaat moom lay laaj kay lu mu woote gi pour lan la wala day xaar Ousmane Diagne yónnee ko vidéo wala Ousmane daa jotu ci vidéo boobu numéro Ousmane Diagne nañ ma ko yónnee man ma koy jox vidéo yi lu waaye wax ci internet bi man mën naa ko koo yombalal di ko ko jox mu koy jox Ousmane ñuy xool ba xam dañuy toppam duñ topp parce que yii kii vidéo la def feeñ mais Ibrahima Sall vidéo la def militaires yi ñuy wër seeni njaboot a ngi jooy moom moom mu expliqué na ba daanaka ni ñu leen rayee sax wax na ko kooku ne ci dëkk bi di doxal wala Pastef la bokk problème bi ah yi ñu ngi bëgg a feeñ soo bokkee Pastef loo wax baax soo kaa yu si ma toogoon fii naa ñaari mhm. bi lañ toog ma jël yóbbu mhm. parce que dañ maa yàkkamti mais comme Ibrahima Sall yàkkamti wuñ ko yàkkamti nañ laat Diop. non nañ bàyyi affaire mu sedd tamit. jarutu ko. yéen jarutu ko yaakaar naa Lat Diop nag bu ñàkk kum dénk nag ay milliards. ah Lat mënoon na ma koo dénk de. d'accord bu ko dénkoon ba jamono ba asamaan si wàcc du ko wax moom. mais mais mais mais mais mais bu fekkee parce que bon leeruñu mais njort nañ ñi. parce que c'est vrai que amul procureur moom moo moom moo demandé à ce que ñu convoquer déglu ko. donc Ibou Dieng boobu certainement mën nañ jàpp ne Ibou Dieng moom moo moo a jàll xëy na xëy na siiwul moo tax amaana duñ ko yëg mais parce que bu fekkee en matière de plainte man mi plainte xaw man maay dem après ki ma plainte soog a ñëw mais ki nga xam moo joxe information yi donc mën nañ xalaat ni Ibou Dieng mi mën nañ ko yaakaar sinon ñu njort ko que ni moom jaar mooy brigade de Euh, euh, projection d'innocence bi dañu koy nangul euh, de part et d'autre mais man dama ne projection d'innocence bi. kenn kereen nga koy nangul mooy ki ñu accusé. wax xaar ma wax la. présomption d'innocence da nga koy nangul de part et d'autre. pourquoi parce que demaguñ jugement kenn àtteegu leen. ñoom ñaar seen plainte. waaw laata neen dina ko yónnee citation. waaw mais coow lii coowul milliards yi da ngay jàpp ne Ibo waxul dëgg. ba keroog Ibo di indi lu mais lat la lay xaar ba gendarmerie di ko woo ci nit koo xam dafa toog di def émission directement tudd sa tur ne la carrément da nga koo dénk un milliard et huit cent millions de francs CFA ba pare ba nga koy dénk mu wax fee yëpp ni mu demee te moom laat moom. neel mu wax ni mu ni mu ko bëggee. waaye bu wax ni mu demee boo dee ni mu demee rek. c'est-à-dire yaa ngi dëggal euh, Abdou Nguer gis nga moom dafa toog wax. waaw ni noonu la demee bi mu koy dénk. waa noonu ca heure ba. wax Ibou Dieng ca lépp ca Ibou Dieng mais est-ce que bu doon man ñu ne ma Bilia jox na la 2 milliards 200 millions jox na ma 1 milliard 200 millions. wax ni ko Ibou jin waxee man su ma xëyee damay dem ci yoon ne Ibou Dieng na ana preuve yi na indi ay preuve yi wane ni man dénkoon naa ko 1 milliard 200 millions ndax dinaa ko toppee di diffamation su ma jàppee ne defu ma mais tey jii nii la moo tax laa toog ci rukkam rek dina patt ba xaar ba gendarmerie di ko woolu. man nit toog na fii voilà fii nii Binta laay toog na fii ne ma diw yow yaa wax ne jox na la nangam. te xam naa loolu amut mais jaralu ma yóbbu ci yoon léegi mais nag waxam jooju bu demoon ba egg procureur woo ma ci waaw ma yóbbu ko ci yoon laat loolu la def c'est-à-dire que nit bu nee laa diw moo la jox nangam man nga jàpp ne kii waxu ko mer la mais nag wax ci bu demee dem ampleur ba yoon am ci yoon yow day baax nag yow tamit nga dem setal sa bopp mais bu procureur wuutoon laat laat du ko porter plainte mais comme procureur nga ci dugg di ñu ci commencé dugal yu kenn xamut boobaa nag jukk ak say mbokk day jot parce que balaa liy raam àgg ci ñag bi. yow yaa ngi différencier ñaar ñu bokkul benn maa la lay wax ci Lat Diop yow nga may wax. xaalis la de. waxu xaalis ñaar yëpp waxu xaalis la woon waaw xaalis la rek. yow li yow liñ la wax ci xaalis. loolu fee la boo xamante ni yow bokkoon nga ci combat yi taxoon nga jug. waaye boo waaye Sidi Sidi Ahmed ci xaalis boobu. waaye tooñ la. boo nee diw yow loolu yaw wax nga ci tooñ la. teg toog nga ci plateau yi Abdou Nguer xaalis boo fekk carrément xaalis eh. boobu yow yaa ko jox pour clé. waa man la waaye boo nee loolu xam nga yow la kon moom bu toogee moom Binta laaj laaj la ci question am na ci laajul question loolu du question. waaw ak lu mu la ci mënti wax. dama la jox exemple rek. non am na yeneen i waga yu koy def yu ko doon def. non naa ci lim keneen. loolu moom du exemple. même même même Thioro Mandela accusé woon na ko ci yoon. bu <laughs> euh, jàppee yéen li ngeen war a baax. xam nga yéen ngeen war a bàyyi bu ñu leen indilee information rek ngeen di wut lu neex ah, waa ah. Pastef ba leen ko. kan mooy def loolu duñu yonant. bu ñu inditee information bu leen ko traité ni neexee waa Pastef di leen ko traité ni seen aqulaay demal. lan mooy traitement bi par exemple. traitement bi cest à nga bëgg gëm ne Ibou daa daa daa dañ kaa dénk ay milliards bëgg ko bëgg ko koo rafetalal bëgg ko ko wengala ba mel ni Ibou Dieng dañ kaa dénk. non loolu kenn waxu ko. non ni ngeen di analyser nii loolu sa xalaat la nangul nañ la ko. bu la neexee a gëm Ibou Dieng parce que li Ibou Dieng wax nag dafa dafa wax da koo yéexe waaye dama ne laat. dama la jox ay exemple yu bari ci nguur gi hmm. lay jox exemple yu bari yu ñuy def maanaam seen seen ñi leen wër dafa seytaane gu bu dugal ci réew boo xam ne ku njëkk nga jotee ku bokkut da kee rek dañuy ñëw jëm laa ruux pour non yàlla ñu yàlla musal ci ñii. Hmm. allahu akbar ndeke iblis am nay ndaw nag ndax nga gisee mbir moom balaa ñoo avance ci beneen hmm. point ndax nga gisee mbir Ibou Dieng ak euh, euh, la Diop audition bi. Euh, ndax nga ko gisee. lenn rek laa